jël loxom bu tedd ba mbëtt mi ne ñokkat ne ko anta rasulillahi kalalaw ba wax loo na mbëtt ma moom sayyiduna muhammad wa annal juz dafa am benn ëkk bu nekkoon madinatu munawwara nabi bu doon xutba loxom la ciy teg keroog ba mu demee madinatu munawwara bàyyi ko màkkatal mukarrama këf ga da doon da doon da doon da doon jooy ngir loxo yi daan tegu ci kawam du ca tegooti waaw déglul Alaaji Abdu pour mu leeral la ko mu ne la dal firaaq keroog bi bi nabi tàkkale ko moom la ko jooy da mais ba fa nabi di teg loxoom ëkk ba jooyul deful dara min mujizaati shitaa'i wal qamari waaw kañ Alaaji Abdu nee na bokk na ci mujizaatu nabi xar na weer wi ñaar demal gaaw akrim bi akrim teralal bi ci sang bi mooy ki nga xamante ni yàllaa ko jox mbooloom yiw yi mu koy sédd la gaañ mbaa yëg nga ne yàlla jotul ci jaam yi pour may leen hmm. dafa ëpp yëg nga ko hmm. Seydi Hassan yëg nga ni yàlla jotul ci jaam yi pour may leen direct jaam yi itam jotuñu ci yàlla pour ñaan ko direct huwa sirru sirrullahi sirrul wujudi muy sayiduna muhammad moo dox diggante ba mooy la yépp wa anta portullahi ayu imri in ata min gayrika lam yadxul Moustapha buntu yàlla lu mën a ñëw romb ko rek du àgg ci yàlla mooy seddale mooy nangu buy jëm ci yàlla buy ñëwaat ci jaam yi ci loxoom lay jaar mu sàndi leen ko Moustapha mooy def loolu moo tax seen xemamteef ci garab gaa moom maam yàlla la yuqeelu mën naa jur jur jur jur daanu di yëg ci kaw mën naa jurati daanu di ko xool ba sa bët yi lonk ci kaw jaratu ko nabi nee na sopp leen ma lonk lu ma kor mu daanu lu ma xëcc mu agsi te du daanu du ma kor nee na soppi leen ma lonku ci diggante yéen yéen ak borom bi abu may ma ma tëj nabi dugg madinatu munawwara foofu laay tëjee sama wax fi mu njëkk a fanaan la la Maodo di tëjalee wax ji fi mu njëkk fanaan sëñ daraame ñoo ngi lay ziar fi Maodo fi yonent bi njëkk fanaan lala la Maodo bëgg a wax ci madinatu munawwara ndax ci étage la wala ci taaxum suuf bi Maodo dina la ko wax nga dégg léegi léegi léegi léegi waa xanaa toppatoo bii kër gi tubi al ula moo ko moom buur la woon moo njëkk a def tuur de monde jaar makkatal mukarrama xelam des ci kaaba gi am ko ànd ak moom yàlla may ko fattu kooku ne ko kaaba gi ki gën ci mbindeef yi dina ñëw ëllëg fii lay njëkk a dal mu toxoo fii dem madinatu munawwara mu ne ko fooy madinatu munawwara mu ne xamaguma ko waaye tour de monde bi ñuy def mën nañ koo xamaalee fan mooy madinatu munawwara ñuy dox day ànd ak nit ñoo xamante ni chaque jour dinañ añee ñetti téeméeri xar ak ñetti téeméeri nag ak ñetti téeméeri béy dinañ ko añee te du das dara du des kon mbooloo moom bari na tubi al ula ñoom la doon àndal moom la yàlla di léebu ca sóortu naj bi moom tubi mu dem ànd ak gaañooña àgg Madinatu Munawwara bi ñuy def seen tour de monde ñu def fa escale bi ñu defee escale de jóg di dem waa jooju yàlla may kasfu ci seen biir mu ne leen billaahi yéen nga di dem waaye duma dem yàlla xamal na ma ni ki gën ci mbindeef yi fii lay mujjee dina fi am kër fii lañ koy rob man tubiyal uulaa nag am naa alal bu doy naa fi tabax ay cité moo njëkk a tabax cité moom tubiyal uulaa mu tabax ci diggu ëtt bi kër gu rëy mu bind leetar ne kër gi may naa ko ki gën ci mbindeef fi mooy naa Muhammad bu ñëwee ëllëg joxal leen ma ko diggante tubi al uula ak rasulillah yi junni at la yu tegul benn weer te teewul këyit gaa nga fa kuy faatu jox ko sa doom sa doom jooju buy dem jox ko beneen doomam ñu tëj ko ci biir enveloppe bi kenn du ko tëjji keroog bi nabi duggee madinatu munawwara loolu lañu doon laajte këyit ga leetar ba leetar ba ñu ne moo ngi ci diw bi ñu ne moo ngi ci diw ñu ne nañ ko jëli Maodo nee na bi mu ñëwee fi asfali daari ci taaxum suuf bi xal la njëkk naa fanaan al badru rasulillah Maodo nee na taaxum suuf la njëkk fanaan avant moo yëg ci etaas bi ñu ne Maodo lu ko yëgal ci étage bi mu ne waaja fa dëkkoon Abu Ayuba dafa tànk setala ndox di xaar fajar gi jot mu yeesal jàpp comme kër yooyu ban la woon soxna si njëkk ko ndox ma roogaat siit ci kaw nabi bi ñu xëyee yére yi ñuy sañsee yëpp mëppee ko ndox ma yenu yére ya juur ko ci wetu na bi ne waay waay dimbali ñu yaa gën ci mbindeef yéegal ci kaw ñu faree la ci suuf balaa ñoo defati lu ëpp looloo yóbbu na ci ci ci ci étage ba Maodo nee na ñu ne Maodo waa kër gi ñoo yàq yar lan moo tax ñu bàyyi na bi mu fanaan taaxum suuf ñoom ñu fanaan taaxu kaw Maodo nee na kër gi xat talabu ñoom ñëpp sàkku nañu nuzuluhu fanaanam fawqu ci kaw baadal man im ginnaaw ba mu bañee ci ëllëg sa ay dix heures et demi Maodo nee na seen naa nabi mu gàddu ay bagaasam jour Salomé muy borom mu d'accord yéeg ci kaw étage ba door a firee ñëpp ci kaw bi ñu laajtee leetar ba ba mu ñëw ñu ne xale bi gën a rafet Madinatu Munawwara moo koy yeb na yonente bi ñu woo Abu Yaxla xale bu rafet la woon ñu jox ko leetar bi nabee ngi farankalaayu ci pénc mi gor yaa ngi toog ñëpp di xoolante di xaar leetar bi ndax dëgg la wala du dëgg ndax nabe moom kër gi wala moomu ko abu yaxla ne tëll di ñëw nabi yàlla wan ko ci abu yaxla mu ne jaa abu yaxla wa maahu baraatu tubi al ula abu yaxla ngi ne la jëyow yor leetar boo xamante ni tubi al ula moo ma ko bind pour may ma kër gi te booba yàlla yónnee guma kon kër gi may borom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh عبد ولم ينل بجودك ما يرجو من الفوز والأجر كنت صلاة وتسليم على شافي الوراء محمد المختار كوكب موي خير بني في ذره وأزواجي والآل عن دينه أصحابه من الطغاة ذوي الكفر سبع شيخ الحاج الله سمار النار وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي هدتي إذا اشتدت الأهوال يوم المزمة كسب دبغ مائك هو الكفر وغضر المني من آدي هو المبدأ المأمون في كل شدتي لا تقدروا الدراء بسعدي من جاء أسبق رانيا أرقص نباه مالك الله تعالى أنا من كنت مالك بحر قدامي لا تقدر الدنيا بشاتي من جاء وزرنا قبى بعد البقي وكلما يزار بها زرناه أصل الغرامية وزر وطني إن حبريك على مرور ليالي البدر لا إخوانية صلاة وتسليم asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokk mbokk gi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaan yàlla yal nañu yàlla defal jàmm ak sutura di sant yàlla bu baax waaye di sant Cheikhou Sall male ak Alioune Dieng tuuti ko noonu xaw rek wekk wekk su juumee rek ne ko da juum moom it su juumee na nangu dëgg tey nag ah, suñuy digganteeg suñuy kilifa dëgg la nit sax du wax kilifa am juum nga ci ci làmmiñ waaye mën na ko ko wax ci façon ci doxalin ndax lu waay màgg-màgg ak lu waay rëy rëy rëy kenn gënu la rëy rasulullah te am na ku ñuy wax zul yadayni la tax ñu tuddee ko zul ni ñaari loxo yi dañ sutaate woon benn bi moo gënoon a gudd benn bi ñu tuddee ko zul yadayni borom ñaari loxo yu sutaate yi benn tisbaar lañ wax ne yonent bi sallallahu alayhi dafa julli ba sëlmal am ñaari ràkkal la ci julli sëlmal ne ñokket wéeru ci poto bi am na wax nañ am na yenn saxaaba yu jot a génn jàkka ji sax zul ñi ni raam ci rasulullahi ne ko yaa rasulallahi jibril dafa ñëw wax la ne julli tisbaar dañ ko wàññi walla da nga juum dégg nga wax mi yeneen yonent bi ne ko ndax yow it seetlu nga li ngay wax mu ne ko ñaata ràkk nga am yonent bi ne ko ñeenti rakk laa am mu ne ko ñaar nga am yonent bi ne ko ñeent laa am mu ne ko ñaar nga am yonent bi ne wool leen ma abu abubakarin ñu woo ko mu ne ko ñaata rakk laa am mu ne ko dëgg-dëgg ya rasulallah ñaar nga am nag mu ne wool leen ma omar ñu omar mu ne ko omar ñaata ràkk laa am mu ne ko ñaaru mu ne ñokket dem indi ñaari rakk yi sujud keroog la sujud tàmbali loolu ku ko ñemee wax suñuy sëriñ tey ngeen baal ma rek kañ bu sëriñ bi juumee dañ naan arash la ko jëlee njuum te amul arash xam nga loolu looluy wax bi moom lu jub rek a fa waaye lu juum lu juunu amul arash waaye léegi sëriñ bi day juum ñu ne arash la ko jële mel ni arash moom lu dëng doo nga fa am arash dara dëngu fa lépp a jub tabaarakallaahu kon maa ngi sant bu baax Cheikhu di sant bu baax Alioune ñoom ñi ma orienté waat jubbantiwaat ma ba xamal ne bés bi tey la tabaarakallaahu yàlla defal ñu sutura ñu ñëw ba fekkee ko yàlla nañ ko fekkee déwén te yàlla bu ko kenn wute fii ak déwén ah li ñu junj junj léegi ci biir mu di xar yële yeewe ku ne bëgg na ci kenn ku ne ba nga bëgg yàlla na nga ko am yàllaa koy joxe nañ ko ko ñaan rek kenn ku ne ba nga bëgg ci sa biir xol yàlla na ko yàlla jox jox la lu ko togg jox la lu sañseel xale yi jox la lu la sañseel yow borom kër jox la loo joxe ndéwénal jox la loo desal yal na ko yàlla def yal na yàlla defal ñu ko yal ñu ko yàlla defal ci barke kii ci suñu wet muy Seydi Aboubacar si ci barke baayam bu tedd bi oustaz Sidi Ahmed doon waxtaanee muy Seydul Haaji Malick ci barke Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ci barke Cheikh Mohamad al Ghali ci barke Alfahim Mayoro ci barke saahibi rimah ci barke abi hafsin Cheikh al Haaji Omar al Fouti al Gadawi fa tabarakallahu yal nañu ko yàlla defal ah di leen wax ne nag am nañ gan gu mag kii toog xam naa di nuyu sama technicien bu baax bii tubaarkal eh, yaakaar naa bii mooy ñaari yoon ma gis mu may sonoriser ñu ngi koy nuyu bu baax man toujours waaw papo eh, damay nuyu toujours sonorisation ñi ko yore ndax soo ko nuyuwul bu leen neexee ñu saboté sa waxtaan dañuy waayi ñi këf ki nga naan waaye defaral fii micro yow it ca ngay nekk di wax ba dootoo xam li ngay wax ñoom ñu la bëggee saboté rek saboté la moo tax toujours dama leen di nuyu jox leen seen wàccuwaay kon papa ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay di ñaan yal na barkeel yal na barkeel li nga ci bëgg yëpp yal na la ko yàlla defal li nga ci bëgg yëpp yal na la ko yàlla defal yaa ko xam nag li ci sa biir xol nga bëgg ko ci li ngay liggéey yal na la yàlla defal barke te may la ci lu kawe sa njot di nuyu bu baax suñu caméraman Omar Diop gis nga moom it bi may woo seexu dama ko doon wax demal wool ma Omar Diop ne ko bu dee soriwul na indi télévision bi mu ñëw filmer ko Chérif baax TV bi ñu yàlla sarax ma ne ko ne ko indi filmer ko ndax dama ko ko comme bés bi suba laa waxoon moo tax rek ñu dabaatal ko waaye alhamdulilah dala rëccut kii toog nag wallahi Sénégal ñoo am sikk am feebar waaye kii toog moo tax sànq bi ma cheikh bi déeyee du yow la dama dama bëggoon nga wax dimbale ñu sa chauffeur jële ñu dem jële ñu xaaji Malick Cissé kële la yaakaar na Souleymane ma ne ko waaw waaw dawal bu doon keneen ma lank yàlla xam na ko ndax man sama fulla ak sama fayda moom duma ko weccee ndax sama oto bii ku ciy dugg dama koy xam ndax gars yi dañ ciy dugg dugalal la ci saafara wala téere ah yooyu dama ko xam dama ko dund ah sëñ Abdou Lamine toog na fii ci stade bi ci ci grande mosquée ñu dugalal ko grenade ci ginnaaw grenade lacrymogène dem ba di ko déclenché mu takk ci ay loxom loxoom yi dagg keroog El Hadj Abdou Aziz wax na ci lu rëy ne ko balaa ngaa dem ñi la jong ko ñu ñëpp daañu dem keroog lu mu waxul sëñ Abdou Lamine da ko fàtte moom laa jab Abdou Aziz daf ko bañ ba woote Tiwaawoon daar daar ne xanaa lu surga lu borom kër tële tële tële gërëm mu gërëm surga bi nga xam ne bu wootee ca tool ya moo fay jiitu te moo fay mujj mu ne te koo koy Abdou muy sëñ Abdou Lamine moo tax man oto bi la ko ciy dugg dama koy xam même chauffeur bi dama koy wax booy ñibbi vide bu ma yebal lu dul koo xam ne xam nga ko ba jeexal ko mu jógi sax dama ne ko bu ma newul ci oto bi bu ma yebal kenn mën nga yeb kuy jaay drogue fekk dafa yom ko nu shérif ñu jàpp ko jàpp oto bi te bu buñ ko jàppee dañuy jàppale oto bi ku moom oto bi ñu ne shérif Ibrahima ah ña yàkkamti woon ñëpp ne day jaay drogue léeg-léeg dañuy foog ne soxor la fekk bàyyi xel àddina la àddina moo yegg foo xam ne nit ñi dañu feebar dañu feebar bu nit ñi feebaree nag yow nga wér li Seydul Xaaji Malik waxoon gouverneur ca Ndar ba mu ko ne insha gouverneur sax du wax insha allah laa jab du moo baax daf ko ne bu subaa waa gét Ndar bu ñu ñakkuwul ñoom ñëpp dinaa leen rey ñi ci des ma tëj leen ci kaso bi mu ne ko lu tax mu ne ko dañu réew mu ne ko nga yaru mu ne ko dañoo xamadi mu ne ko nga xam mu ne ko dañ dëgër bopp mu ne ko nga nooy bopp mu ne ko yow lu ma wax nga dimbale leen mu ne ko dimbalewul ma dimbalewu ma leen dama laa wax dëgg mu ne ko loo ci jublu mu ne ko ndax France dañ la fi indi pour ñi ngay gouverner nga rey leen boo leen reyee koy gouverner ay tabax ak i taax mu ne ko wax nga dëgg dama juum nu may def mu ne ko noonu nga waroon njëkkee mu ne ko dëglu ma boo ëllëgee ca yoor yoor na nga ñëw ak sa équipe dinaa la wax nooy def Seydil Hadji Malick Maodo wasifa be noppi génn ci jàkk ji ne na ñiy ñakk ñu ne ko ñu nga nële mu waaxu dem ba ca ñoom wokk loxol mbubbam ne defal leen ma fii ñu ñakk ko lëbu yëpp ne ah gannaaw Malick Fa waa Déwélé ñàkku na lu ñun lu ñuy xaar acca ñu ñàkku ji dal di rang ci saa si rang bi toll ni innama ñuy ñàkk ba tisbaar fekk ko ca këram mu toog mu ne ko jërëjëf Malick bu du toll yow ma rey ñëpp mu ne ko boo reyee ñëpp gouverneur boo reyee ñëpp mu ne mu ne ko waa France tëj la mu ne ko buñ la dënkee mbooloo da ngay naxante ak ñoom ba li nga bëgg kon kii toog muy alxaaji Malick Cissé ñu bari xam ko ci Cissé jinge léeg nga dégg ko naan Cissé jinne lu ne wax nañ ko ndax ñàkk mën a wax tur rek waaye alxaaji malik lañ ko tuddee Cheikh alxaaji malik lañ ko tuddee mu sant Cissé dëkk jinge moo tax ñu naan Cissé jinge waaye du Cissé jinne alaaji Malick lañ ko tuddee mu sant siise dëkk dëkk bu ñuy wax jinge ca wetu Tiwaawan muy ku baax bëgg ma lool ba weesu ab sësoon rëkk ci Cheikh wala ma ne ba tey sax sës rëkk ci Cheikh Seydi Ahmada Tijaani si al maktum te du ko doxe du ko waxe moom mii bëccëgal na Serigne Cheikh guddeel na sëriñ Cheikh naajal na sëriñ Cheikh keral na Serigne Cheikh tawal na Serigne Cheikh nooral na Serigne Cheikh nawetal na Serigne Cheikh Serigne Cheikh moo su ko yónni mu laaj ko paas wala mu ne ko jox ma oto lépp lu Serigne Cheikh taalif ci xasida xam nga ñaare boo baree xam-xam rëy xam-xam tabaarakallaahu doo rafet loxo di nga mën a bind waaye loxo bi du rafet lépp lu Serigne Cheikh taalif moom mii moo ko bind ndax tabaarakallaa kaligaraaf la fi nga koy gis nii beneen bi ci des li ko Serigne Cheikh jox ci million yóbbulal diw wallaahi bu doon keneen mu jàdd ruq cof ci laal dóom te sëriñ bi du ko wax dara nag bu boobaa waaye Serigne Cheikh mosu ko yónni mu manqué te ay millions la doon teg ci loxoom yii ci gàmm yi yii ci conférence yi yii demal seetali ma diw ci hôpital lii demal joxal ma diw dañ koy waaje génnee lu yaas lii demal joxal ma diw ndax dañ ko hospitalisé te maa ko war a fay yu ci bari moo ko dox ba Serigne Cheikh li gën a neex ci àddina mooy mujj dundam ci loxoom la mujj loolu rek day na sëkk moo tax dama ne bu ko Sénégal xamoon wallaahi dañ koy yenu buy dox koo xam ne Serigne Cheikh gërëm na la njabootu Serigne Cheikh gërëm la deseetoo dara ci àddina yàlla deseelatu la dara ndax ku xam Serigne Cheikh laa wax ci dimension bi ko yàlla teg ci xam-xam ci wilaaya ci fegu ci nëbbu ci làqu ci xam boppam kon xaaju ñu ngi lay ziyaara di ñaan yàlla yal nañu yàlla taas ci sa barke ndax ñukkal na mag ñi ñuqil na mag ñi ñaar yépp def na ko kon Cissé yow ak ñun ñépp yal nañu yàlla boole may ñu gudd fan làq ñu fa yàq yeggul sabu kër alaaji nga sabu Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum nga waaye sagu géejawaay gii nga dëkk nga yal na yàlla may ñu ñu muurloo la nga muurloo ñu kon moom la ñuy jox kàddu gi ndax sànq mu ngi may wax ne Tiwaawan la jóge dana ko waxal boppam ci ay yonent yu ko kilifaam yónni woon ba léegi tekkiwul jaajam fam ko takkaloon Serigne Cheikh ba léegi fa la ko takkal njobootu Serigne Cheikh nag ko Serigne Cheikh daan woowe di ko yebal ba léegi njabootu Serigne Cheikh noonu lañ koy woowee di ko yebal ba tey moo ci mujj taawu sëriñ Cheikh di Serigne Mouhamadul Mansour mu tuddee ko Serigne Mansour borom daara ji mu nga ca France depuis 2003 ba léegi ñibbisiwul mooy taawu sëriñu Cheikh sama gàmm gi ci géejewaay moo ko daan taxawee ba muy nekk conférence moom mi xam na nit ñi xamuñ sax lu xew ak Cheikh Ibrahima Sall rahmatullah wa radi anhu moo ko daan présider sous le haut patronage de Cheikh Ibrahim Sall la daan nekk et sous la présidence d'honneur de Thierno Mouhamadul Bachir Mountaga Cheikh Oumar waxtaan wa Serigne Mouhamadul Mansour ibnu Cheikh Seydi Ahmad Tidiane si al Maktoum moo ko daan def bokk kook imam Mame Ngour ba muy dem ci ndigalam lañ ko joxe baayam bu baax bi di sëriñ kër si Abdoul Aziz muy sëriñ Bayam ba muy dem la mu wax mooy shérif ba ma ko mujj fekk këram ndeysaan mu ngi sol jàllaa bi bu bleu mu ne ma shérif dama damay tukki ndax seen réew mi xajuma fi ak seen ëñ ëñ ji ma tooñ ko ne ko nijaay ndax sama nijaay la ma ne ko ah kon de nijaay dootoo ñibbisi na ndax ëñ ëñ ji kanam la jëm de du wàññee ko de waaye 2003 2003 bi léegi ñaata at la 2003 ba fii ma toog di wax ak yow tànkam tegewul senegal 15 ans tànkam tegewul senegal ñi mu fiy woo téléphone ñu néew la boo ko ci seppee Europe it ña ko fay gis ñu néew la kon Hadj Malick daal ci gàttal mbooloo mango yàngu waxal lu la neex lu la sopp ak lool ñu bëgg dënk nga dënkuñu ko soo paree it ñu ngi lay déglu soo bëggee toog ak ñun nga toog ak ñun mag nag déy naa ko ne ko dañ koy sakkanal soo bëggee yeeweeku it ñun sañu ñu laa yeewi ndax yaay kilifa jotaay bi waaye nga ñaanal ñu te bàyyee ñoo barab bi ñu wuutu la fi ndax ku am njaboot mu war laa mën a wuutu tabaarakallaahu imaam imaam Faye ngi nii ci sa fa tabaarakallaahu fay rek a ko yàq bu santoon juuf dara du ko dàq kon ñu ngi koy sant di ko gërëm waaw mu ne moo njëkk a jàngal too taawa muy Cheikh Tidiane tabaarakallaahu di nuyu kilifa yëpp a ngi fi dinañ leen nuyu waaye dañ koy jox kàddu gi mu baaxee ñu lenn ci li nga xam ne rek yàlla yenkewal na ko ko tey pour mu baaxee ñu ko su noppee nu mu def rek ak nu mu bëgg def baax na kon xaaju Malick yonent bi nii maamam sallallahu alayhi wa dafa am benn mag ci bàyyam yi ñuy waxtaan ci ay cërët yooyu ba jaag ñu ne ko waaw yow yaag yonent bi ku mag mu ni wulittu qablahu wa huwa akbaru minni sinnan man lay jëkk maa ko jëkk a judd waaye moo mag loolu nag day direku ci moom mii ah ndax moom maamam ñun ñépp ginnaaw yàlla ak bi moom lañu yaakaar waaye itam dëkk gi mu dëkk ci sunu biir bu nu ko xamee baax na lool waaye bu nu ko xamul danger la ndax du nu ko mën a jox cëram ndax loo réere ni ko ëy moom nag yàlla dogal na yàlla teel nanu koo xamal ndax sunu xol moo ko nangu nu sopp ko ndax dafa sopp ki nu soppul ginnaaw yàlla ku dul moom mooy Seyti Ahmad Tijaan Sy Al Maktoum da koo sopp cofeel goo xam ne di fa yóbbuy àddiya di fa yóbbuy àddiya ba sëriñ Cheikh woo rahmatullahi alayhi Omar Samb ni ko neel shérif lan la bëgg mu ne ko nee ko dama ko sopp rekk di indi lii may indi ndax cofeel dafa am lu koy feeñal ci biti waaye boo ko bàyyee ci sa xol rekk kenn du xam ni sopp nga ah sëriñ bi ni ko waaw baax na baax na am joojee nag am na lu mu lu mu firi lu bari ndax moom boo ko soppee rek jaaxal ko ah bu ko defee li mu wax ci man lépp wóor na ma ni ci moom la ci boppam la ko gisee dañ ni boo joxoñee nit di ko wax lu bon benn ba nga ko joxoñ dong waaye ya ca des yépp mi jëm si ci yow baaraam yépp ci sa yow la jëm si boo ko defee nii benn ba nga ko joxoñ loolee nga ko joxoñ li ca bari la ca des lépp ci yow la jëm si ndax baaraam yi ci des yëpp dafa banku jëm si ci yow boo waxee nit lu baax itam noonu la mel e bu ko defee nag moom yii mu may takkal wax dëgg yàlla même bu fekkee ni loolu la ko yàlla ci won ci manit Cheikh Ousmane Dam Fodio bu nekkoon fële ca Nigéria maamam la moom mii dem la sant dafa jëloon tariqatul qadiriyya ci góor bu ñuy wax Cheikh Jibril ndax booba xaadir yi moo xew ñu di ko tagg di ko wax lu ne mu ni in qiila fiya bi xusni zanni maa qiila fa mawjatun ana min amwaaji jibrila mu ne ah li ñuy wax ci man de yi te ci rafet njort rek lañ ko teg bu dee dëgg du ma dara lu dul aw duusoo duusoo ci géeju sama sëriñ bi wax Jibril waaye moom it li mu wax ci moom ci nun bu dee bu ci dara amee ah du nu dara lu dul as jë su duusoo ci géeju jàmbur waaje nee na ma kuntu fa hum ra'aw nii li daaka ahlan fa sirtu ahla hum saadati jaahuhum azimun fa abduhum la yazaalu mawla mu ne man de yéen a ngi may yéem waaye lii ma kilifa gii di yebal ma di ko doxal day yeyoowuma ko matuma ko waaye comme moo ma seetal boppam nag ba defloo ma ko loola moo tax xëy na kon ma man koo def ndax ñoom ay sang lañ yoo xam ni ku nangoo nekk seenub jaam doonub sang ni ñoom loolu dong moo ci nekk ah guddi gii pour man chance la ci man yàllaa ma ci boole ndax Souleymane Sarr dafa bokk ci ñi nga xam ni dañoo bëgg xam-xam lool te lañ ca bëgg kës néew ñu foog ne am naa lu ma ca man mu bañ a xeeb sama ijji ga boole ga di ñëw ci man nuy bokk di yër téere yi di ca xam ndax sama turandoo Seydi Hadji Malick dañ koy gërëm ni ko góor gi mag nga bët yi neexatul yaram wi wératul te taxul nga bàyyi ndax nun di sonn rek dinu jàngal mu ni doom jàngaluma leen dama leen di jànge ndax boo jàngee te doo jàngale it mën ngaa fëttale kon nag jàngaluma leen dama leen di jànge waaye moom itam loolu moo dox suñu diggante sëñ Cheikh bi may jàngale ci gouvernement bi ba retraité dama faa dem ni ko sëñ bi di man retraité naa mu ne ma bi ngay bi lay jëkk a fay ca jënd piliaan ma ni ko loolu mooy lan mu ne xam nga tubaab at yi ñu lay retraité day fekk ngay door a xam sa digg-digg expérience ak xam àdduna ak xam liggéey ñu ñu retraité la bañ la fayee nag boo ci jëndee piliam jaaxaan jëmale dee te te da war a tàmbaliwaat nag man ko waaye sëñ man dama xam lu jàngale te xaw ma dara mu ni ma buñ ciy réeroo ma yow rek waaye wax dëgg yàlla Souleymane ak ñeneen ñu mel ni moom dañ fay ñëw di jàng si ca man la ma xam néew xeebuñu ko nuy nuy shérif bu baax di ko teg ci li nu wax ni anzilul naasa manazilahum yonent bi ni dee leen wàcce nit ñi seen seen cër ya leen yàlla jox teg leen leen fa ah muy koo xam ni wax dëgg yàlla bu nu waxalee yàlla dee mu xam ni moom wutul daraja waaye yàllaa ko délégué ci barke maamam muy leeral ci jumu maamam lëndëm yi mu fekke parce que Serigne Cheikh dafay wax ni feebar ñaar la feebaru zahir ak feebaru baatin feebaru zahir diw dafa soj diw dafa sibiru diw dafa girib nangam nangam feebaru baatin nag loolee dal kon ca sa cër yi ci kaw mu dal sa xel wala sa ruux bu bokk bu boobaa doktooru baatin moo la mën a faj mu ne doktooru baatin nag du beru dëkkam day fee fa malaat ya nekk mu ne yonent bi mos la ber dëkk ndax dari doktooru baatin te borom maladie yu rëy ña nga madina ndax màkka la jëkke dégguñu ko te joxaguñ ko ndigalal xeex mu toxu dem madina bi muy dem dafa geesu kaaba gi ni yàlla génne nga ma ci sa dëkk bi nga gën a bëgg ma gën koo bëgg yàlla nag ma yóbbu ci dëkk bi nga xam ni bëgg nga ko ni nga bëgg dëkk bii ma ma dem ma nekkal la fa ah Seydi Haj Maalik wax na ko ci mim ya wa qaala xabib ilayna rabbi taybatana ka xubbi makkata ummi ruxmi war ruxumi mu ne bañ fay door dem dañ doon épidémie am fa sibiroog ndax seen tempérament seen température seen température moo jaxoosoogul ak dëkk ba mu ne nag yàlla yal na nu soppaloo dëkk bi dëkk bi sopp mu nanu soppe woon màkka ah moom nag shérif wax dëgg yàlla ku xam luy xàq Cheikh na Tijaani nga gis ko war nga ko jéem a jox cëram boo ko amul itam nga sopp ko ngir yàlla ah cofeel ngir yàlla rek moo am solo Suleymaan nag xale yi mu àndal ci mbooloo mi takku nañu ñi mel ni moom bëgg ni moom xam-xam bëgg ni moom kër Seydi Hadji Malick ñoom la àndal ndax benn lam du keleng lam bu yëngoo rek moroom ma dafa dafa yëngutoo moroom ma ah, bu ko defee sunu mbokk Ousseynou Sylla di chauffeuru taxi di soppe Seydi Aboubacar soppe Seydi Cheikh Ahmad Tidiane ak njaboot Seydi Hadj Mali yépp mu ngi fii ñëw nag nuyoo nanu fi ak bokk yu baax yépp ñu ngi fi may nuyu imam mii di nuyu aima yi fi nekk di leen beral loxo ci nuyoo bi ndax Seydi Cheikh daf ma mas ne fu ma la yebal te muy mbooleem jullit boo toppee boo demee toppal ca ilimaan yi ndax ilimaan bari na ñuy wax ni ñooy xalifa yonent bi bañaluma leen ko waaye bu dul ilimaan ma xam ni baatin ba nga doone xalifa waaye biti ba moom ilimaan a ko moo fay xalifaam ndax yonent bi service bi mu doon doxal jullee ci ëpp solo te ilimaanu ko ca wuutu yàlla itam moom moom néeg yépp waaye benn la nangoo moom ni wa annal masajida lillahi te yilimaana ko ca wuutu kon nag fu ma la yebal te mu mbooloom jullit toppal ca yilimaan ya yónni ma benn jumaa bu ñu doon inauguré fële ca Sendou ca gannaaw Bargny ilimaan ja góor gi njoon la tudd doom yi ci daayiratu Moustarchidine ci kade yi lañu bokk moom ci peeri daayiratu Moustarchidine la bokk bi may dem ba ma ba pare ba may dem ba ma ñaanale ba pare ni ma yebaluma la ci daayira nag ci jumaa laa la yebal ma ne ko ah waaw loolu nag mu ne ma waaw damay bañ nga jaawale sa masalam tariqa ak sa masalam sharia ndax ñu bari dañuy jaxale jaxase ñaari masala yooyu comme ci jumaa laa la yebal te eh, yilimaan je ci peeri daayira bi la bokk damay dem nga di fa waxtaane waxtaane daayira ak waxtaane tariqa mu ne nit ñi nañuy moytu woo seeni nawle ba ñu ñëw ñépp di jullit ngay xas seen sëriñ di tagg sa sëriñ di gaaral seen sëriñ te duñu mën a dem ndax ku jóg ñu defe ne lii ñu waxe ko neexul kon nag bu ñuy raxatee doon ñéppi jullit nañu waxtaan ci li gën a yaatu mooy lislaam bi mu ne loolu la bëgg ngeen xàmmee ko ah bu ko defee nag wax dëgg yàlla Souleymane noo ngi koy gërëm di gërëm mbokk yi mu àndal taxawal lii waaye li ma ci dàqal nag Chérif mii ngeen woo mu taxawal leen ko waxtaanal leen ko te itam dina leen orienté fu ngeen war a teg seen tànk ba fi ngeen jëm ngeen àgg fa ndax moom daayatu piir la tur ji nag du jigéenal waaye mubaalaxa ndax xalifatu te góor la daraakatu fahaamatu allaamatu yooyu yëpp lil mubaalaxati la waaye du taawu tëniis doonte sax waaje xool na jenn jigéen ju mat ju baax ba yàgg mu ne walaw anna nisaa ka misli haadi la fuddilati nisaau ala rijaali mu ni wóor na ma ni jigéen ñëpp bu ñu meloon ni ndaw fii dinañu gënal jigéen ñi ci kaw góor ñi sëñ Cheikh ma ni ko ah da nee na jigéen ju diine lislaam bu ko góor xeewee ba ko ko te góor ga di jullit bu ndaw sa xamee lu xew dina ko ni du sa moroom ndax li ngay tiitaroo di lislaam maa la ci jëkk ndax xadijatu mooy jëkk ci lislaam ginnaaw muhammad parce que muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi muy ñëw fekk na christianisme di yont yàlla isa am na juróomi téeméeri seen diggante ban ñi desoon ci wàllu christianisme rax nañ ca lu bare bari ba bokkatu ca waaye moom dafa ñëw rek daa di yàlla xiir ko ci bu xëyee wallu mburóom yóbbal dem ca xunti ma ca ginnaaw màkka xaaru xiraa di fa méditer yendu fa ba yàlla dogal min baadi tain wala min summa sittati ashhurin raa kam filaaqi subhi lam yahimi mu ne ba mu amee juróom-ñeent ak laam di fanweer ak juróom benn weer maanaa nu ma tudduti sax waaw fanweeri waaw trente trente ans et neuf mois et six ak neuf ans ak sittatu ashur trente neuf ans ak juróom benn weer la commencé di gént ndax am na loo xam ne ku ni xay ni ko cëpp nit ki rek day dof jibril di ko feeñu léeg-léeg léeg muy muy gént gént koo xam bu xëyee day mel ni xar-xaru doy ba ba muy matal ñeent fukk ya ca la nekkeb yonent ba mu gisee jibril pour moom dafa jommi mu daw ñëw ci kër gi di lox zammilu ni sàng leen ma ah, sëñ mbay mi doon firi xam naa dafa reere foone ndax sawar na lool ndax am mbayeen la waaye mu jéggal ma comme téeréem bi maa ngi ciy dugg ah mu daal di wax ni ko xawma loo gis waaye du njuuma ndax li ma ko xamal li ma xam ci yow ci jikko yàlla du la jommal yaa xamagul nag lu mu waaye du njuuma ah daal di daw dem ca waraqatu nu nawfal ba mu demee ca waraqa fekk moom chrétien la waaye dese na ci ñi mu xam ni ñi xam lim ji bu ñu soppee gul woon ca la bokkoon mu ne ko nii nga ma wax de ni moom la la wax bu dee dëgg mooy yonent bi desoon ci yonent yi ci mujjug jamono te mooy gën ci yonent yi yépp waaye naa ko gis ba mu demee moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ji Waraqa li mu gis mu ne ko yaay yonent bi desoon ci yonent yi waaye nag aka neexoon ma fekke kere bañ lay yónni ñu di la génnee ci dëkk bi ya aka neexoon ma fekke ko ba jàppale la mu ne ko awahum muxrijuuya wala aw muxrijuuyahum ndax dañ may génne yi mu ne ko waaw waaw kenn mos la yàlla mos la may lu mel ni li mu la may mu may ko nit ci biir bokkam te iñaanewuñ ko Xadija daa di tàllal loxoom daa ashhadu an laa ilaha illa wa annaka rasulullah daa di jébbul fa kon jigéen a jëkk ci lislaam ginnaaw muhammad ali ibnu abi booba Xadija ko yor ak yonent bi seen ñaari baay abu talib jur ko bokk ak abdullahi ndey ak baay mu jox yonent bi abu ali mu yor ko mu ni man de damay tàggu ci sama papa pour dugg ci lii bayaan mu dellu si mu ni ko xanaa démoo mu ni ko dama seetlu ni ba ma yàllay bind tàgguwul sama bàyyi kon nag bu may dugg ci mbiram du ma tàggu sama bàyyi daal di wax moom it baat ya Xadija wax Zayd ibnu Haarisa di doomi euh, namu tëti Haarisa moo ko jur mu doonoon jaam bu ñu jàppoon may ko yaay yonent bi mu doon na ko ci moom goreel ko ba mujj ko adapté ko sax def ko doomam ci falamma falamma qada zaydun minha wataran zawajnakaha ca zeynab bintu jaxsh ñoo xam ne safiyatu mi ko jur ak abdallahi mi ko jur muhammad ñoo bokk ndey ak bàyyi ah ba mu ko defee alin daal di jébbulu zeynub nu xaar zeynub nu xaarisa jébbulu mbir ma siiw dem ca pénc ma Abu Bakar jébbalu ñoom Ousmane ak mag ñe ñépp ni ko yow loo dugg doy nanu dal di ñoom itam sëñ Cheikh mu ni kon nag yonent bi moo jëkk ci diine ji jigéen a ca topp di Xadija xale ca topp di Ali bu dee ku ñu mooma ca topp di Zeyd maga ca topp di Abu Bakar mu ne nag Xadijatun wa Aliyun وابن حارسة ومن بدعوته عثمان ذو سلم ثم ابن عوف وسعد والزبير وطلحة كعثمان في الإسلام والإمم والإمم أي والشؤون ci mbir yëpp mu ne nag yonent bi moo jëkk ci islam bi moo ko fi indi sëriñ Cheikh mu ne kon sëriñ sépp nañu roy yonent bi a ah, ah Khadija moo ca topp di jigéen jigéen ñépp nañu roy Khadija Ali moo ca topp di ndaw di xale di mbokk mu ne doomi gor yépp nañu roy Ali te di ndaw bu ca defee kañu moom ka di Zeyd mu ne ñi ñuy yilif ñépp nañu roy Zeyd mag ña ca penc ma yépp di borom kër yi nañu roy Aboubacar bu ko defee lépp dox waman nag mooy ka nga xam ne te mooy Abu Bakar ca lislaamam ga ca la Ousmane duggee nu aw ak Saad ak Zubayr ak Talha ñoom ñëpp ka Ousmane ak Ousmane ñoo bokk lu lay dugal ndax moo ne Abu Bakar loola doy doy na ma daal di cay toog nag wa amirun wa suwayrun aflahun ba ba ñu jeex ah daa daal ne mustadafuna ñi ñu jëkk a nag ci lislaam ba tey jigéen la de mooy Sumayya kon jigéen moo jëkk a tuur deret ci lislaam jigéen moo jëkk wax ashhadu an laa ilaaha illallaah ci lislaam xale ca topp mag sa ko ñëw kon nag jigéen ñi nangeen xam loolu ba bu leen góor ñi jaayee nangam nangam ngeen góor góorlu won leen ni leen nooy deuxième yonent bi daf daan wax nag ni xadijatu dey bu subaa ba bët set mooy jëkkër ji ndax mooy joxe dépense mooy def lépp femme d'affaires la woon dafa woomaloon bu guddee nag mu soog a soxna kon nag roy leen xadija mag ñi roy abou bakar sëriñ si roy seydina muhammad xale yi roy aliyun ak zeyd bu ko defee société bi baax ah chérif mii loolu lay jàngale ci kër maamoom gii dafa tolloog nag ku ne ci sa tool di bay kenn du la wax ndax sa bopp ngay bayal ndax bu diine ji lu ci sib ñu mbalee ko maamoom waaye lu ci jagit ñu ñee ko ko gërëme ko ko moom nag ah seen Cheikh daf ni mbir mi mën nañ koo misaal ci ay ginaar ak ngunu ak siiru ñu ni ko loolu mooy lan mu ni jullit yi ñooy ganaar yi lislaam bi mooy ngunu li siiru yi mooy seytaane ak surgam ci koy liggéeyal mu ne kon nag fexe leen ba fu ginaar bu ci nekk ci ngunu li bu siiru jaare ci saw ci sa wàll mukk dugg ci ngunu li maanaam fexe ba bu seytaane jaar ci sa wàll dugg ci biir ngunu li waaye moom mi dey fu mu toog seytaane du fa jaar yàqal ko diine maamam ji ak tariqa maamam bi ah ñu nag dañuy sant yàlla lool ndax sëriñ Cheikh daf ni gis nga nit lu mu dund buy jaamu yàlla wóoru caa sàkku xëcc àjjana wala daw safara ñu ne ko lu tax mu ne li la yàlla def lebal la ko loo def danga ko war di ko ko sant rek ndax nee na bor boo mun la fay la nga ca dugal jër la wax loo am rek dugal ca te nga bind ko te di ko fàttali ñu ne ko bor bi lan la mu ne yàlla mu toog rek lu yàgg ay millions yi mu ne war na ma bind beneen monde bu dul aalamu larwaax rek yóbbu fa ku ma fay nekkal ci biti man ma nekk ca biir zahir nag muy nit xalaat ga mu xalaat boole la ca ñooña def la nit mu ne teraanga ju jëkk ji mooy nga nekk nit zig yi jaani la seen xaaj maa wax xéewalu amal ñu amal la ngay nit mu ne ndax lu dul nit buy lekk lu mu tàng-tàng gémmiñam la cay dugal lu yax ya bari bari gémmiñam la cay dugal bu dee nit nag loxoom lay dugal làmb ba xam tàng na seet ba xam luy jamee nga ca mu ne ba mu boobu xéewal goo ko pare nee na mu war nga war a jëli service nag àdduna mu ni waaye fa nga jaar ba ngay ñëw xajoo fa ndax waaye jaar na fa ba tàyyi des ca wala sa yaay melalul indi des ca wala ngir boole bokk ca des wala kenn ki dem bàyyi fa moroom mi mu ne waaw nga jaar fa te dara dalul dara dalul sa yaay mu ne doyul de ndax boo ñëwee te lekkoo naanoo dee waaye boo lekkee naan te li nga lekk génnu li nga naan génnu itam nga alku mu ne waaw lan moo la wax ni lekk gi ak naan gi mu ngi ci weer bi mu ne waxuma loolu waaye loolu wax ni boo ko sexee boo mujjul du ñëw mu ne imaginer bu ñu doon jàng école nàmp ba génne fa diplôme mu mën a nàmp nga soog a mën a nàmp foo jëm mu ne te lu ñu lay embauché ci àdduna dangay am diplôme ba wala nga am niveau ba te nag dund moo gën a ëpp lépp te boo lekkul dee waaw bu ñu doon xaar ba nga am diplôme mu mën a nàmp soo ko soo ko man a nàmp foo jëm mu ne waaw kooku kon nee moo tax buñ ne yàlla fay la nangam nee na damay rus ndax tudd gi ñu koy tuddee pay ndax nee na bu doon pay ak lum la loo ko mën a defal bis boo amee vingt quatre heures àjjana pay ga jeex na mu ne nanuy wax ni defe nanu ni nu tuutee yàlla mayee ni mu réeri waaye bul ko waxu pay mukk ndax pay mooy li nga xam ne lii sa àq la nga liggéey ko ñu fay la ko mu ni amante wunu moom xaq ndax ki lay commerce loo jox la budget jox la capital ba pare ah dina ca gërëm li ngeen am séddoo koo koy wax dëgg yàlla dafa baax rek mu ne boo ñaanu nag xanaa loo jaamu danga ko koy jéem a fayee ci lii mu la lebal nee na dina la yóbbu foo xam ne da heureusement bi ma ñaanul ndax bu ma ñaanoon du ma ñaan lu mel nii ndax xaw moo ni lu mel nii am na te loo xamul doo ko ñaan mu ne moo tax ku mu fay nga rus mu ne bu ko defee góor góorlu rek moo ci des nag ndax nee na yàlla dina dugal nit àjjana te jéppi na ko mu ne waaye ku mu sopp piir nga xam ni ah, euh, am na ci nit yàlla yi koo xam ne kii dafa ëppaloon ci moytu ñu ne ko danga li ngay moytoo dafa ëpp mu ne dama bokkul ak yéen lu ñëwut ndax antum himmatukum alxuur wal xusuur yéen seen bëgg-bëgg yépp ci ni ngeen jaamu yàlla mooy àjjana ak jigéen ñi xóoru yi ngeen di dégg man nag himmati rafu sudur kiy joxe loolu laa bëgg mu muril ma si rido bi ma ne jàkk ci moom ndax gis yàlla moo tax àjjana moo tax bokku nu nuy mooy too sëy Cheikh nag mu ne booy jaamu yàlla melal ni kookee waaye bu jëwul luñ lay faye ak fuñ lay dugal moo tax mu ne ñaar yàlla am lu ñu wax bi mooy sant ak ñaan ndax bismillahi rahmaani rahim nee na li ci aje ci xéewal bu la yàlla formule la woon noo koy sante doo ko xam mu daan ne la alhamdulillahi rabbil alamin ndax waaja daf ni ida kaana shukri nicmatallahi nicmatan alayya biha min baadu qad yajibu shukru fa kayfa bunuugu shukri illa bi fadlihi wa in taalat al ayaamu wattasala al umru mu ne bu fekkee wax gi ma wax alhamdulilahi rabil alamin waxaat ko war na ma ci cant gi cant dama cee waraat ndax yàlla xéewal na loog li mu ma defal mu def ko nit te yëgul ni defal na ko kon nag man lii ma defal yëg gi ma ko yëg loolu ak cant dama cay war moo tax mu daal tëb jox la formule ni la alhamdulilahi rabbil alamin nee na ngeen dem ba ca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu ne la léegi nag ban tàmbalee ba tey rabbil alamin rahmani rahim maliki yawmi diin man rek ngay tagg léegi nag sal tuuta wasal tujab na ñaanal ñu may la nga laaj ñu wuyu la ñaanal may na waaye mu xam ni bu la bàyyee di nga ñaan lu rëy ci yow te fekk lu tus mun la ihdina siraatal mustaqim jox na la formule ci can jox la formule ci ñaan ñu ne ko lu tax mu ne sa maam aadama àjjana la jóge yàlla nattu ko wàcce ko àdduna pour coono ak examiner ko ndax nee na xéewal boo ca juddoo te mosoo toskare doo ko mën a sant ndax doo xam valeur ba waaye xëy ne àjjana rek noonu ba faw doo xam dina yàlla defal moo tax mu mosal ko fii nee ba mu fi ñëwee toskare ja yàlla ba mu ko yërëmee mu daal di koy rey delloo ko àjjana yoon moo mu ko tegoon nag ba mu dellu ba dugal àjjana mooy assiraatul mustaqim moo tax yàlla jëkkanteeg yow daal jox formule ni la ar ihdina siraatal mustaqim mu ni kon yàlla nan ko baax sunu bopp rek mu ni Seydi Hadji Malick nag day koo xam ni moom yàllaa ko génne ci course bi nee na dafa daw ba àgg ba sangu bay sieste gars yi soog a mu ne nag te dara mayu ko ko dul teggin ndax daf ni bi amalin tasilu lil jinaani waaye bi adabin tasilu lirrahmani nee na ci jëf ngay demee àjjana ndax yàlla dina dugal ajjana ku mu bi waaye ci teggin ngay gise yàlla te gis yàlla nag bokkul ak dem ajjana man nga dem àjjana ba mu sàppi la te doo gis borom kër gi nee exemple bi mooy borom kër bu baax ay surga yu bari dinañuy lekk ci këram ñetti waxtu yépp te mosu leen a gis waaye gis borom kër gi nee na moom beneen taxawaay la beneen discipline la kon nag ah shérif muadda fil muadda li eh, fil muaddi la maanaam na na moytu di toog fu ñu préparé woon pour sëriñ bi war fee toog ndax Seydi Hadj Malick nag moo ko ñaanoon ba mu demee Màkka daf ni ñaan naa fa yetti yëf taxaw naa ca multazam buntu ba nga xam ni nee nañu loo fa ñaan mu nangu ma sama boroom loo ma nar a jox ci àdduna ci cër dencal ma ndax réew mu ma nekk di sa lëndëm dafa desandi te ku fa génne sag leer dinañu ko kooj lëndëm ko dina ko xaw laal kon nag làqal ma leer gi ba ëllëg ah bi ci def moo di na ma may sama doom ak sama taalibe bu leen kenn xàmmee ci mbaax na ma may bu ma demee ma am pàkk bu may tuure sama ñaq pour di ca tedde te bañ a tedde eh, ñàkku taalibe yi waaye yàlla may na ko de ni ko bi ci des nag moom may itam palaas yi ñuy jaamoo yàlla di jumaa ki jàkka ma ëppale ca loolu moom ku ne xam na ko foo dem sikkat sa tànqal la ah. ak allah allah jaag salaatu ala nabi ba tuuma na si ajmaa bi ci loolu kon nag sëñ Babacar ne ne bi fi Maodo jógee dafa voyagé voyagé bu njëkk dem Pout dalee góor gi Souleymane Kane mi nga xam moo ko El Hadj Abdou Kane ñoo bokk ndey ak bàyyi te moo ko mag daf doon def terretan foofa ca Pout sëñ Babacar dem fa waa Pout yëg ni sëñ Babacar nga ci dëkk bi ñoom ñépp ñu ñëw di ko seet si waaye biñ ñëwee mag ñi mu àndal kenn xàmmewu leen ndax sañ-sañ fala ahadan min yii abadan illa wa simaahu fi husnin wa tazyini moom la wax Cheikh ni foo dajeeg magam dangaa defee day day tukki waaye jëmul fenn noonu la mel dafa sañse dama mas a sol sama jàlla bi di génn xale yi di ma commencé at xale yi jigéen na paa bi dafa sañse ah leen déedéet dama dee téejaan sañse mun wax na dëgg ah il comme ça <laughs> waaye sëñ Babacar ñu ñu ne leen waaye yéen ñii di seet si sëñ Babacar kan mooy sëñ Babacar ci ñi mu toogal ñu ne ah nun koy doon dégg ni doomi Maodo ñëw nag waaye xamuñu ko sëñ Babacar ni leen seen ñaanu kilifa nangu waxal leen loolee nag kon nag wax dëgg yàlla tong ji ma ni tong ci wetam looloo ma ko may waaye yellul woon mooy toog may toog ci wetam ah waaye maamam nag moo maye loolu sëñ sëñ Cheikh nee na sëñ Hadj Malick def ni seen cere ji de neex kon na waaye xëpp naa ci suuf ku yee sëy bëy dam ñu ni ko mooy lan mu ni seen àdduna mu ni waaw cere ji mooy lan mu ni ah mooy rekk barke bi ci kër gi te ni ci kër gi lu barke alkande la ndax loo xam ne dang-dang nga dëkkee <laughs> mu ne kon barke bi ci kër gi neex kon na waaye xëpp naa ci foofu ku yee nag say bëñ dam moo tax kër gi santul si yàlla la sant ku yàlla saf rek ca nga bokk loolu la Souleymane mi jël ak ñi mu àndal ndax sëñ Cheikh daf nu ma a wax ni na góor góorlu ba fu fi waaye nekk na fa nekk xalifa Seydi Hadj Malick ak waa këram yépp ñu ni ko waaw ku santul si mu ni déet kër gi santul si yàlla la sant ku yàlla saf rek ci nga bokk mu ne da xam nag ki ngay doon xalifaam lan la doon liggéey ba nga nekk ci xalifaam ñu ni ko lan la mu ni Maodo waa këram fu ñu ne jàngale ku ñu raw jàngal la ku ñu ëppale àdduna dimbali lay ci soxlay àdduna yi ku ñu ëpp xel diisoog yow laaye la biir fu ñu fekk lu ñaaw ci ra ñu defar ko ci seen xel yu rafet fu ñu fekk ku ñu ëpp doole physiquement sax di ko tooñ ñu summeeku dumaal la kookee doon tooñ kii ndax ne na réew mi ku ci waay romb gàtt mbubu tax nga yeb ko ba dóor ko borom bu mu gudd dina ñëw fudd sa ndigg ndax ñépp bokk mu ne bu ko defee kuy def loolu foo nekk rek yaa fay seen xalifa bu fa ku sant si ñëwee te mënul loola ba ko séenum te bàyyi service bi yow mu nga doxal ko yow mi sant na la neex ba tax na loolu la xale yi dégg ba tax ñu nekk fii nekkat fi Seydi Hadj Malick ku ñu raw jàngal la ku ñu ëppale alal dimbali la ku ñu ëpp xel laay la biir fu ñu fekk conflit defar ko te doo duñu kër Maodo du doxe ci ñoom tas ndax ñoom sëñ Cheikh daf nu dee leen féete te bu leen far féete mooy nga seet kale yàlla féeta leen te mu doy ci lépp nga ànd ak moom te jàmmal ña ca des mu ni far nag di nga faral nit sax te doyu na waaye dafa am koy naqaral moo tax mu ni kuy wut koo naqaral nag loo defee ne boo ko waxee mu naqari ko di ko wax loo defee ne boo ko defee mu naqari ko di ko def moo tax dee leen féete waaye du leen far asalaamaaleykum warajiya min kal ijaabati bi jaay salli alayhi rabbana wa majjidi وآلي وصحبي والخلفاء الراشدين المهدين الحنفاء بعد توصلي بجاي لقول مردنا إليك يا معطي بعد كل ذول ومتيقنا بحسن الظن حصل ما أبغي يا ذا المن نحمدك اللهم ذا النعماء يا باسط اليدين بالعطاء ودافع الكروب والقطوب عنا لنا وساتر العيوب مما بي أنعمت من آلائي على العباد دون ما استثنائي بارك الله أما قصيدة dox sa digganteeg tiim gi nga tiim Seydil Hadj Malick yooyu yëpp dama ciy bàyyi xel bu la xasida yi rek mën nga ci loroo de teggin rek du dégg nga lim doon wax waaw waaye nag xasida yi ngay jolli ki ko wax di doomu Seydil Hadji Malick mën na laa musal incha allah dee leen ci bàyyi xel dee leen ci bàyyi xel bu baax a baax a baax gis nga li wax ci Seydil Hadji Malick turandoom nee ci teggin ci ngay xamee yàlla ci ngay yeggee ci yàlla waaye jaamu yàlla nag moo lay jox àjjana dëgg dëgg kon Seydil jërëjëf ci xasida yi jërëjëf Seydil Hadj Malick jërëjëf jërëjëf Hadj Malick Cissé ñu ngi lay gërëmati di la santati di la ñaanle yàlla ci li nga bëgg ak li ñu bëgg yépp yàlla nañu ko yàlla boole defal mag mu baax la mag mu baax la wallaay man li may wax ci moom dama ko gëm te euh, yooyu muy wax ci Serigne Cheikh bañ koy def gannaaw Serigne Cheikh laa ko ñeme di tudd ndax Serigne Cheikh ku doy waar la ci wali yu gën a nëbbatu te feeñ ci la bokk moom dama ko daan wax ne shérif de ñaanal Serigne Cheikh hmm. mu ne ah nan fexe ba mu bëgg ko parce que moom bu ko neexee rek mu dem yoonam de dañuy ñaan mu bëgg fee des ma soog ko mën a ñaanal waaye moom wóor na ma ni bu ko bëggul it day dem yoonam ndax koo xam ne wallaay yàgg nañ ci wax ma moom ah, am na ci yu garaaw yu ma ko ci mos a wax am na ci boo xam ne Serigne Cheikh dafa ma ne ma feeñu ne ma bëccëg boobu man kottuma nekk ci kër gi bëccëg yaa ngi koy fàttaliku mu feeñu ma ne ma Sénégal buñ ma xamoon ma toog ak ñoom waaye dañ ma réere moo tax damay dem <laughs> ma woo ko téléphone ak yeneen yu ci aju wax ko ko yooyu muy wax gis nga ne eh, ku ku ko sàkkuwul doo ko am bu kenn nax sa bopp mën nga am sant wi nag sant Aydara neex na sant si neex na sant kunta neex na sant ñas neex na sant mbakke neex na waaye am na loo xam ne faw yaa koy sàkkul sa bopp ba am ko ci kaw si ji ak ñas ji Aydara ji kunta ji ak laay barke bi moom mën nga ko am waaye soo bëggee dëkk dëkk la ca loxol yàlla nag hmm. foog nga am kilifa te kilifa googu it foog nga sàkku ko ci moom pour am ko ñu yëg ne Serigne Cheikh ca la bokk li muy wax tarbiya boobu ma def ci moom ay at la te kenn yëgu premier at bi man ak Amadou Sall docteur Amadou Sall mooy magu ñoom Cheikhu mii mu ngi fi dee waaw kañ dégg nga Serigne Cissé nee na anamu ma ne ko mu ngi fi de mooy magu ñoom Cheikhou Sall bi toog ñoo bokk ndey ak baay premier année boobu man ak docteur Amadou Sall ak Abdoulatif Guèye ñoo cotise rahmatullah alayhi wa radi anhu mhm. ànd ak imam Moussa Guèye yóbbu ko li may wax man dafa am ay seede boobu dinaa leen wax montant bi ñaata la ñetti tonni suukar la woon ak 3 millions te at bu jot dafa dolleeku benn Serigne Cheikh génn àddina mosul wàññeeku ah, waaw ah, <laughs> moom mi xam na ci dara mosul wàññeeku su ma ñëwoon Baye Omar day ubbi gaaraas bi ne ma Serigne bi nee nga dugal ko ci biir ah, te na ko wàcceel sa bopp suukar bi yépp maa ko daan wàcceel sama bopp ah, kenn mosuma ci jàppale bu ma paree jox ko enveloppe bi ah, ba bés li xaj Malick wax ni mu ne ma sëriñ bi nee na loo bëgg ma ne ko dara dama koo sopp rek mu ne ma nee na ndax bëggoo ngeen gisee ma ne ko ndéedéet ne ko jéggal naa ko nañ gisee fa gisee dàqee waaye du fii ah, te damay bañ li may liggéey yàqu mu ngi nii di ma seede du bàyyi ma fet ma ne ko damay bañ li may liggéey yàqu te gise gi mën na ko yàq kon ne ko mu ñaanal ma rek dama koo sopp rek Serigne Cheikh ne ko baax na ne ko baax na baax naam googa nag ca lañ nekk ba tey day baax rek waaw Hadj <laughs> Malick ne ne day baax rek ndeysaan may tudd sama doom tuddee ko Serigne Babacar si mu yebal Baye Omar Samboura sama xarit la woon. ñoo ànd moom mii moo ànd ak Baye jox ko enveloppe jox aasi jox aasi enveloppe jox ma enveloppe. waaw ne ko neel Chérif dañ doon jamante jam jam na ma. maa ngi koy nettali léegi ci dëj bi ma demoon Pikine. ndax njobootu Serigne Cheikh lañ ma di leen ko nettali léegi. tabaarakallaahu léegi laa fa demoon ci bëccëg ci dëj bi ba ma fi jógee ci biir ci boobu laa jëm Pikine maag Serigne Souleymane bu baax bi ñoo ànd ndax njobootu Serigne Cheikh lañ ma doon dem di leen massawu maa maa ngi leen koy nettali Baye Omar ci won la kilifteef Serigne Cheikh da ko ne lii jox ko shérif lii teg ko ci loxol aasi Baye Omar tudd mi fa la ko fekk moo ko Hadj ñu teel a ñëw lañ waaye nanguwul ñibbi mu ne ndax mais a mais la ko bàyyi la ko Serigne Cheikh waxoon ci aasi te aasi boobu mu ngi ca salon yi di defaru waaw <laughs> ma ne Baye Omar waaw léegi may borom këram jox ma ko bu ñëwee ma jox ko ko mu ne ma sëriñ bi waxuloo li sa wàll jot nga ko lii nag dafa noon mais à mais te gisaguma aasi ma ne baax na ñu def toog ba di une heure aasi ñëwut imaam Moussa ne ko jox ma ko wala nga jox ko yaayam mu ne leen waa jile bu ma fi doon fanaan damay fanaan waaye mais ah mais la ma wax sama loxo loxo laa si yow yaayam nga kii baayam la bàyyi leen ma rek man yàkkamtiwuma ndax ki ma yónni yàkkamtiwul fa la toog ba deux heures aasi ah, door a ñëw seen salon yu bon yii rek nekk ca rek di defar yu kenn xamul di njambaa a cappa-cappal ak lu ne nga dugg ci ba aasi ah, ñëw mu jox ko enveloppe bi ndeysaan ma door ko gunge bi ma koy gunge ndikk bàyyi ma may bàyyi xel solu ma dàll ñu dem ba ci taxi bi mu ne ma yow soloo dàll di ma ne ko bu doon Serigne Cheikh du ma sol dàll te yow mii ak Seydi Hadj Malick mii sëriñ seex laa leen jàppee mu ne ma bi ma ñëwee ci kër gi maa ngi fekk sëriñ Serigne Cheikh toog ci salon bi di ma xaar li mu yàgg-yàgg nee na Baye Omar moo may nettali Hadj Malick a ngi nii ñoo àndoon mu ne sëriñ bi ne ko naka tudd ma yow laa doon xaar pour fatu mu ne ko tudd ma daal si ku alaaji Malick am rek teew na fi mu ne ko kuñ ko tuddee mu ne ko sëriñ kër si mu ne ko bettu ma woon te ñépp dañ foogoon ne sëriñ Cheikh laa koy tuddee mu ne ma ku tudd doom ja bàyyi ma ne ko loolu ma yéem nag ndax ñi sant si ñépp nga fa shérif ne leen yéenay samay sëriñ si ngeen sant waaye tudd doom nag sëriñ Mor jóob laa ci wëllëranteel may leen ma mu tudd ko noonu laa ko te boobu ñi ku Alaaji Abdou Aziz jur ña manqué bariwul ak yeneen siyeen yu bokk ci kër gi waaye ma ne leen may leen ma rek yéenay samay sëriñ xaqiqatan waaye tudd doom nag sëriñ moor jóob laa ci wëllëranteel may leen ma mu tudd nga di ko tuddloo sëñ Babacar <laughs> <laughs> sëñ Mor Diop ku ko ni tuddal ma doom ji sëñ Babacar ku xam sëriñ moor xam digganteem ak Serigne Babacar si rek nga xam ne keroog sëñ moor ci xaal la nekk Baye Omar nee na bi ma ñëwee ba wax ko Serigne Cheikh ne ko sëñ Mor Diop moo tudd doom ji mu ne ko nee naa leen shérif du nit ndax du jëf-jëfi nit mu ne loolu ku ko ñeme ci mim réew waaw baat yooyu Serigne Cheikh wax ma moo ma dàqal gis ko keroog Baye Omar bi ma koy nettali appareil photo yi ñeenti appareil photo yu rafet yu sophistiqué la ma jox ndax boobu maa ngi ànd ak samay doom yi te xale yi tuuti lañ boobu ñeenti appareil photo yu sophistiqué ba léegi maa ngi ko denc nanguwuma xale yi jël ko te léegi man nañ ko utiliser ndax ay mag lañ te xereñ nañ ci waaye ba léegi maa ngi ko denc fekk amuñu jabar duma leen ko jox ndax fonk gi ma fonk Baye Omar ndax xam digganteem ak Serigne Cheikh appareil yu cher la leen jox ñeenti appareil photo ndax maa ngi àndoon boobu ki ma tuddee Alaaji Malick ak ki ma tuddee Cheikh Omar Fouti ak ki ma tuddee Cheikh Sidi Ahmad tiijaan yi ak ki ma tuddee sëñ Babacar si eh. keroog ñii laa àndal eh, man tuddeeguma sax sama bàyyi doom yàlla xam na ko ñëpp njabootu Maodo laa leen tuddee. ñoom laa ko ko tuddeel. kon fa tabaarakallaahu ba léegi tuddeeguma sama baay doom tuddeeguma sama ndey doom ñépp njabootu Maodo laa ko jox kon Xaaji malik suñu wayjur nga suñu sëriñ nga suñu xarit nga loolu la yàlla dogal eh, moom lu bari dama ko ko nettali ci sëriñ Cheikh luy seen tem tey sax ana Souleymane yéen ñëw luy tem bi déedéet wax ñu wax ma luy tem bi rek amoon ngeen tem eh, Sidi Ahmed luy tem bi waaw ñu ngi ci xilaas Sidi wax na ci El Hadj wax na ci te li ñuy wax ci waaw ah shérif ak waaw lislaam ak daara ji jeex na ñu ngi ci daara ji di génn guñu alaaji malik te alaaji malik mooy borom daara ji wala déet te li ñuy wax yëpp génnul daara ji moom la ñuy conclure sax incha allah duñ fi yàgg ndax xam naa xaaji malik teggi na mayu ko mu jóg dem te àll la yendu kon lu luñ ci am rek li mu wax rek doy na waxuma dara nag li mu wax dëgg la de oustaz Sidi tey dafa rakkaaju waxtaan wi mu fi waxtaan ak ni mu ko waxtaanee tabaarkalla moom xam naa ne ay ganaar la añee door a ñëw waaye maa moom ñoo bokk yendu ci dëj ba waaye xëy na jaar na këram. mbayeen bi la moom ñoo bokk yendu kër gi dafa naan fonde ah sëñ bi xaaj Malick nee na dafa naan fonde waaw ah waaw kon Eh, dañuy présenter kilifa yi gannaaw biñ sante xaj Malick suñu jur wu baax wile sëriñ ah, Serigne nag kuy wax ci moom dinga nga desal boo benn rek laa ciy nettaliwaat yàgg na maa ngi ko koy nettali ba ma ko ko nettalee yàgg na boobu maa ngi saint wi ci ndigalu Cheikhul Hadj Abdoul Aziz def naa ñetti ak Saint-Louis yoo xam ne ma ko benn yoon laa génn Saint-Louis ñëw euh, ñëw jak saw fekk ko fa te boobu Cheikh Seyd tiijaan Tidiane moo ma feeñu ma ñëw di ko wax li ma wax ci moom ak sëriñ Cheikh boobu ci sëñ Abdou la ma yónni ak sëriñ Cheikh nettali naa ko booba keroog bési nawet la jamono nawet la woon comme nii bi may jógee jak saaw mu ngi yott yottal asamaan saa ngi yott yottal boobu Ibrahima Fall bi moo doon ministre affaire étrangères waaw Ibrahima Fall borom kawar gu bari te dëkk Tivaouane boobu mooy ministre affaire étrangères seet si woon sëñ Abdou keroog ñoo añandoor man ak moom ak sëñ Abdou ca jak saaw Hadj Aziz toog na lu yàgg xamuñ annoncé wuñ ko maa ngi koy gis ca gannaaw ku yaru la Ibrahima Fall ku yaru Jóob Njaay mii ci masjidu rasul moom moo déy góoyat góor gi ne ko Ibrahima Fall yàgg na fi de mu ngi ne la ci ginnaaw mu ne ko Ibrahima bul defati yii yow mbokk nga kilifa nga soo ñëwatee rek àndu ma xam ne ñëw nga ma yeewi la nga dem ndax li ci sa bopp bi dafa bari waaye acca ñu bokk keroog man Cheikhul Hadj Abdoul Aziz Ibrahima Fall ñoo bokk góor gi di dagg di ñu tegal bi ma ko waxee lii bi biñ paree ba ma wax ko yóbbante bi ma noppi mu geesu ne Ibrahima Fall yóbbul ma shérif ba Tiwaawoon te nga sàkkul ma lu ko yóbbu ba Ndar Ibrahima Fall ma indi ba Tiwaawoon taxaw ci station bi jëlal ma oto bu ma yóbbu ba Ndar fay ko waaye bu sëriñ cheikh bi laay wax boobu ci ndigalu sëriñ Abdu laa fa nekkee woon boobu benn mbubb laa am bu bu gris grand ñetti morceau yu gris daara ji na yàgg naa naqari de trois ans ñetti morceau boobu lay sol awma beneen sama nijaay moo ma ko mayoon boobu la seexu sagari xew ñu di ko ñaw mu may ma ci bu bees bu gris dama ko daan sol comme grand mbubb bi da koy futti deux bi rek ngay sol mujj na dafa furi ba ba ba bi niroowut ak grand mbubb boo ko solee day mel ni deux ma gis Cheikh Seydi Ahmad Tidiane ci saal bu mag li may wax ni duggante de yàqazatan saal boo xam ne ëpp na stade su ma bañul fenn ëpp na stade de l'amitié salle bi yëpp ay fauteuils yu xonq ci nekk mu ngi mel ni assemblée nationale ni mu bindoo bu mel noonu bi ci kaw moo fa nekk benn nit a nekk ci salle bi mooy Cheikh Sidi Ahmad Tidiane comme ni assemblée mel moo toog ci fauteuil ba moom Seydina Cheikh ma dugg ci salle bi. saal baa ngi wéet may waaxu jubali ko ndax moom rek laa fas yéene bi ma ñëwee ba jub ko mu ne ma yow taxawal sama sët nga damay wax ak Cheikh Seydi Ahmada Tidiane Sy Al Maktoum ndax sama turandoo la am na lu may wax ak moom su ma noppeek moom nga door a yegg si fi ma taxaw bougé wu ma maa ngi gis Serigne Cheikh am ko dékk noppam muy wax ak moom lu toll ci 15 minutes Serigne Cheikh siggi ne ko insha allah jaar ci port bu ndaw bi comme ni as président assemblée nationale di génnee ci port bu ndaw bi port bu ndaw boobu la Serigne Cheikh jaar dem ba yëf jeexee ma gisanteeg sëriñ Cheikh mu am benn suuf bu mu génnee lal ko nii tas suuf si ne ma suuf si amul ci àddina yawma tubaddalul ard gayral ard wa samawaatu wa barazu lillahi alwaahidil qahaar mu ne ma moo tax lu ma soxla ci àddina ci alal am ko lu ma soxla ci àllaaxira am ko keroog la ma wax baat boobu ma miisati in lam yakun fi miisati ma yastadillu bi wafri alxadasaani walxaqu annaka qad ataaka mubashiran xayrul wara bil xatmi wal kitmaani fahuma al asaasu lima tara min nicmatin amat bisaatal ardi bil fayadaani kon nag fom famdud yadan minha ilayya tafaddulan wardud biha wajdan bila xusbaani maa baalu mislika bil ibaay waqad xadaa yazu bi adnaa juudika saqalaani fa dahru dahruka laa tuqaarabu sultatan wal fatxu fatxuka kifatay misaani fataqallaban fi ma tasha wa tasarrafan min aalami al arwaaxi wal abdaani bal wazian hadihi al ujura takarruman bayna alrijali wa umma bittijaani hada rasulullah yowma nuzulihi mutaqallidan bilxaqi walburhaani mutabassiman faraxan bi saffi malaa'ikin basatu ilayka akufahum bi tafaani yatalaqanuuna salaataka al-uzma allati ma baadaha lil jinsi min qurbaani wal xuuru min bayni nawafidi fi lxima mutafarrijatun fiika kal wildaani wa alayka burdun qad kasaaka muhammadun fi lmawqifayni bihi wa fi lilaani wa bi wajhika saafi bi wasfin baahirin ummul kitaabi bi xattiha nuuraan yaa sayidi yaa sayidi yaa sayidi man lii bi mislika mutatal ajifaani yaa sayidi yaa sayidi yaa sayidi man lii bi mislika lil fuaadi l aani yaa sayidi yaa sayidi yaa sayidi jaasaaka rabbuka an banil awtaani summa salaatu ala nabi wa alihi min rabbihi fi rabbihi lxannaani maa qaala ahmadu littijaani munshidan fa ilayka yam na mahammadin naadaani est-ce que waaye daara jàngu seen daara ji mat na waaw Hadj Malick si Maodo moo ko nettali imam Moussa Guèye mu nettali ma ko nee na xasida bii bi ko Alaaji Abdu jotee bi ko Serigne Cheikh di njëkk a bind mu ne Hadj Malick Maodo daf ko ni sama papa bi mu ko yëree daf ko ne ah Cheikh de li mag ñi mos mos na ko daf nu recevoir man imam Moussa Mbacke Fall mii tey procureur ak Abdou Aziz Seck radiallahu anhu wa rahmatullahi ak Samba Cissé sama rak keroog mat fukk ak ñeent Omar Samba sax si ca la bokk mm-hmm. onze ba quatre heures ci ngoon Mbacke ni ko ah sëñ bi de lii occasion la mm. ndax man fay leeka dama ko mokkal di ci ñaan yàlla sama soxla mu de ma ko may te aw ma ci woon ndigal comme toog na ma yow nag may ma ci ndigal mu ne ñeent ñëpp laa koy may mu ne dëgg gi ndax Maodo si daf ma wax ne bi mu ko jàngalee sama papa Abdou mm-hmm. da ko ne seex de doom mos na li mag ñi mos sëñ Seex ne ah man kay mosuma dara xanaa ñoom kay ñoom mos waaye man day mosuma dara <laughs> wallaay gis nga looy nettali rek aw ma bi ma ko imaam Moussa di nettali ah xaw ma woon moom mu nga ca délégation ba ah, ah te baleen Serigne Cheikh de recevoir ah, fekkeewu ma ko. 11h ba 4h 11h ba 4h 11 ci suba ba 16h ci ngoon tabaarakallahu kon daara ji ñëpp a ko bokk daara ji ñëpp a ko bokk kon lii mu sedde ci Souleymane ah na ko ñëpp roy jàng du wees. minal mahdi ilal lahdi la yonent bi wax daara ji nag ñaari daara am senegal daaray nasaraan bi ak daaray rasulullahi daaray nasaraan ji nag lañ gën a jox importance ci daaray rasulullahi yi waaye looloo mos di am nag waaye toujours nag daaray rasulullahi mooy not ndax daaray nasaraan ji buñ demee ba tiit ci daaray rasulullahi lañ jëm ñoo leen di ñoo leen di dëfal ñoo leen di dimbale buñ paree kañ woor mel ni du ñoom kon danañ ci mos tuuti waaye ñu présenté rek te jox Hadj Malick mu ñaan dafa am kayit guñ ma fi jox di remercier ñi def lii ndax lu mel nii waaye nag mu ngeen may ma ma am ko ma jukki séen naa ko day daw rek muy commissaire Assane Ndiaye commissaire la commissaire de police sama xarit sama wëllëri am na yu bari sax duma ko wax yal na ko yàlla lafal cet te fi mu bëgg a yegg yal na ko fa yàlla yeggale te yàggatul incha allah yàggatul léegi tey mu bokk ci instance yi gën a kowe ci réew mi yàlla dina ko ko defal ndax dafa baax am yar am teggin am orma xam li muy def te am ci sutura incha allah ci barkeb Serigne Cheikh mii ñuy waxtaanee fu mu bëgg a yegg dina fa yegg xamoo fu mu bëggul yegg de te moom xam na li may wax mu nga nële ca gannaaw yal na ko yàlla lafal cat waaw xam na li may wax man xam naa moom xam na ñu ci bari it xam nañ ndax ci daayira bii la bokk waaw ci la bokk kenn gënu ko ci yeey fa tabaarakallaahu ñu ngi koy nuyu ndax kilifa la yàlla ko def kilifa di nuyu bu baax a baax a baax. kiñ jiital ci nuyoo bi mooy Baye Cissé Jinge mii toog muy ni ma ko waxee xaj Malick Cissé bu Serigne Cheikh Tidiane si Al Maktoum di nuyu ay ati ati at mu ngi ñëw ci kër mësuma diis soxla lu dul benn yoon te xam ngeen soxla bi lan la xam nga daa xaw a dër si am naa permis ñaanal moom moto ma ko Thierno gaaw na di yow kañ nga fi jàng oto bay mën am mu génnee permis bi wan ndeysaan ma ne ko ah yàlla na nga am oto waaye du mm, Thierno bu yow mii mbaa mën nga dawal Thierno yow du ma doo ma yeb de ah, xam nga dama koy tooñ nit ku baax gis ngaa xadara bële mooy lal mook aatumaan mooy lalli su ma fa nekkee su ma fa newul mooy jël si malaanu wasifa su ma fa nekkee ak su ma fa newul su ko jël siwul rek góor gi soow a koy jël bu gàmmu gi ñëwee dang dang dang dang dang moom soxlawul sax yu ligg si mu ngi ca wàññi mu nga ca tànt ba mu nga ca mu nga ca carno yàlla la yàlla tey yal na yàlla mottali la say yéen li ngay daj ci daayira yépp nag yal la ko yàlla fay te incha allah dina la ko fay xul xul i'malu fa sa yara allahu amalakum wa rasuluhu walmuminuuna wa sa turadduuna ila alimi alxaybi wa shahaadati fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun yaa ngi ci te insha allahu yàlla dina la ko fay waaw man amila saalihan fa li nafsi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bi zallamin lil abid yàlla ne ku def lu baax ma fay la lu baax ku ma tooñ sa bopp man yàlla nag duma tooñ kenn gis nga ni yàlla màndoo mu ne ku def lu baax ma fay la lu baax ndax sa bopp waaye ku def lu bon mu ne sa bopp te man yàlla nag jomb naa di tooñ samay jàmm kon jërëjëf cam na yàlla fay leen njaay jaata njaay dana yàlla fay ku baax la ku baax la dama ko xam dama ko xam li ci des rek mooy ma utal la soxna balaa ngaa ut taxi nañ ut soxna ba noppi soxna mooy taxi bu baax bi bu bële taxi majaas la rek yal na yàlla def sutura kon mbokk yi waaw waaw waaw wallaay maa ngi leen koy ñaan man tur bi maa ngi koy door a digg moo tax mënuma ko liir man Thierno njaay laa xam waaye dimbale leen ñu dee leen ko wax Thierno Ndiaye waaye yàlla ko wax ci alxuraan wala tanabazu bii sa ismul baadal imaan wala tanabazu bil sax la wax wala tanabazu bil ñu ne ko lu tax mu ne bii sa ismul baadal imaan baadal imaan la wax de yàlla ne bàyyi leen bàyyi leen tur yu bon yi ngeen di woowante gannaaw ba ngeen gëmee yàlla yàlla ne bon na ku tudd Moussa nga naan ko Moïse yàlla ne bi ngeen gëmee yàlla ci seen xol bon na ku tudd Souleymane nga naan ko Gile yàlla ne bon na gannaaw bi ngeen gëmee yàlla ku gudde tudd Fatimatu nga ko Faa yàlla ne na gannaaw bi ngeen gëmee yàlla ku tudd Roqiya nga naan ko Roxa wala Kiya yépp xam naa ko maa ngi yéen bokk Sénégal te ñoo bokk génération yàlla ne bon na gannaaw bi nit ku tuddee roq ya nga naan ko kiyaa yàlla ne bon na gannaaw bi nga gëmee yàlla ki tudd Abdul Aziz nga naan ko Ziz yàlla ne bon na gannaaw bi ngeen gëmee eh, yàlla ku tudd Abdourahman nga naan ko raxu yàlla ne yéen bon bàyyi leen tur yu bon yooyu ngeen di woowante yàlla def ci mise à pied ñi koy def baaxulaan ah, bàkkaar bu rëy la dañ koy foyee nag waaye bàkkaar la lu yàlla dem mag mu toll ni yàlla lu ko ñor ba mu ne watt ci alxuraan ñor na ko nañ ko wattandiku ndax tur day topp borom nit loo koy woowee day royaat ci moom kon nañuy wootantee tur yu rafet yi moo gën te am nañ tur yu rafet cerno lu ko dàq am na am na lu dàq ceeb na amul. Ibou nee na. waaw tur dafa am solo turandoo. nee na porte sambu bu ñuy door a jëlee ca magasin ba defagul dara koo ca may ndox mu ne dag maa yem te defagul dara waaye turandoo lay waaw. ah waaw daara jàngi yéen wax daara ji daara jàngi de li mooy xam-xam mokk na li ngeen doon jàng ci fanweeri at tojal na leen ko ci benn barab. wax na dëgg potu sàmba turwaa tax wallaay bu bees tàq boo demoon fii ci palaasu Malick Gueye jënd ko bàyyi ba Seexu Sàll ñëw ca ca kër ga ganesi la nga defal ko ci ndoxum naan walla nga yekkal ko ca ganaara ah bu yeboo sax nga ne ko Seexu bu bees tàq la du lekk te dana la jéppi te bu ñemee dana la saaga turandoo wee tax potu sàmba kon tur day royaat waaye dimbale leen ko ngeen bàyyi tur wi ngeen koy wooye maa ngi leen koy ñaan bés ni tey ci ormay kii ñu fi dajale muy sëñ Babacar Si Seydi Aboubacar Si maa ngi leen di ñaan bu ko ko kenn wooweeti